di leen balu àq di leen baal di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole nu ñëpp jéggal suñuy bàkkaar te xiir ñu ci ak njub te saxal ñu ci ci barke Serigne Touba Xaadimu Rasul euh, mbokk yi Al Azhar Touba ñëwaat na ci seen émission Touba paradis sur terre wala Touba jannatun alal ard émission bi nga xam ne nii dañ ciy faral di dalal euh, ay nit ñuy wax seen i gisin ci dëkk bu tedd bi di Touba nga xam ne amuñu dudul moom tey nag ñu dalal ci kenn ki nga xam ne nii Euh, yaakaar naa du jarati sax ñuy guddal présentation ci auditeurs yi ndax déjà yaakaar naa ne xam nañ ko muy Serigne Mouhamadul Mourtada Kebe euh, xanaa rek dina doy ci rek ñu wax rek ne euh, moom soxna Waalo Mbacke moom Serigne Saliou mooy wayjuram waaye itam mu nekk produit Serigne Saliou Mbacke maanaam jaar ci daara yi Serigne Saliou ci jàng ak jàngale ak tarbiye ginnaaw bi nga xam ne ni jàng na alquran ba mokkal ko bindi kaamil ca kër Serigne Chouaïbou Mbacké euh, kon Serigne Mourtala euh, ñu bàyyi la nga nuyoo mbokki téléspectateurs yi ñu ñëw ci tomb yi nga xam ne ni tey tànnoon nañ ko ngir waxtaanee dëkk bu tedd bi di Touba. Euh, bisimilah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah Serigne Lamine <coughs> ñu ngi lay nuyu di la ziar di la sant ci dalal gi ak mm. yaatal gi di delloo kàddu gi tey. jërëjëf Serigne Mouhamadul Mourtala c'est la première fois defe naa ñu dalal la ci émission bi nga xam ne ni mooy Touba paradis sur terre ñun nag euh, émission bi niñ ñu ko jàppee woon rek mooy Touba day euh, day day symbole ci àdduna bi comme ni ñu waxee ne. Euh, euh, Touba ca garab la ca àjjana goo xam ne branche yi dem na ci kër ku nekk euh, Touba itam nekk dëkk boo xam ne nii yaakaar naa ay njariñam dem na ci continent bu nekk ndax continent bu nekk ay murit nga fa di liggéey di taxaw ci liggéeyub Serigne Touba taxaw ci ay njàngaleem hmm. loola yaakaar na njariñam dem dem na fu ne kon loolu mooy concept émission bi tey nag ñu ñëw ci ay point yoo xam ne nii jàpp naa ne dina yitteel mooy jëmmi Touba gii ñu nekk ah maanaam situation Touba ndax mi ngi ci ni mu waree a ah, man mi la koy laaj man jort naa ne nekku ci hmm. euh, bu fekkee nekku ci lan mooy lan mooy xàll bi lan mooy euh, lan mooy saafara si nga xam ne nii moom nga mën a indi ngir mu tege ci bu doon saxaar ñu ne mu tege waat ci kawraay bi ngir mu mën a àgg fa jëm. waaw jërëjëf sëñ comme niñ ko defoon rek hmm. euh, gannaaw bi di ñëw indi ci ay ay jàngat ndax xam naa li wax mu am na mooy ñun ñëpp gis nañ ne. Hmm. am na nu mu waroon a doxe nu gën a gaaw nañ daan doxe mm-hmm. kon dañuy indi ay jàngat yoo xam ne mm-hmm. doonu ne dañ koo teg ci xam-xam boo xam ne dañ ko nose ci ay jàngukaay yu mag yooyu waaye mm-hmm. ñu ci dëkk bi yaroo ñu màgg ci dëkk bi jàng fi ñu yaral leen fi rek ñu indi seen xalaat te loolu duñ ci xeeb suñu bopp loolu nag buñ kon seetloo ne dëkk bi ni mu waroon a doxe ci nam daan doxe ci màggu gaaw googee eh, seetlu nañ ak sooxe loolu boo ko bëggee saafara da ngay dellu ci niñ sose dëkk bi ak ni daan ah, màgge mhm. dëkk bi sëñ Tuubaa mi ko sos ah, ak doomam yi nga xam ne ñoo ko jëmmal soos googu ñu ngi ko taxawale ci ma mhm. ci liñ fi def lépp muy màgg gum daan màgg ci wàllu infrastructure mhm. lépp ci xidma la jaare boo jëlee eh, sëñ Mour Moustapha bi ñëwee bëgg tàmbali ndigal sëñ Tuubaa loolu ci taxawal jumaa ji booba jamono xat na lool metti lool adduna bi am fu mu toll mhm. teewul ci yitte ju kawe ja mhm. mu ñëw song ko song indi fi raay mhm. te booba raay eh, tubaab bi rek ñoo ko ñoo koy yóbbu te yóbbu nañ ko barab ya ya ëpp nekk barab yay produire fii di barab boo xam ne ay mbell nekk fi ay baykat ñoo fi dëkkoon te ñu neew lañu booba sëñ Moussa Moustapha ñëw sémm liggéey bu rëy boobu daal di indi Euh, raay bi ànd ko taalibe yi mm-hmm. teg ko ci loolu moo waxoon léegi muy ma mm-hmm. santaane mm-hmm. nit ñi ñëw fekk si ko ci seen munu soit daj ci loo xam ne nii ci jamono ju naqari ba ñuy bari yaakaaroon ne du ci mën a génn mu ànd ko taalibe yi magi murit yëpp ñëw wane ci seen positif fekk na Cheikh Ibra Fall nekk mag loolu sax waaye bu ñëwee mu mosaan ma ñëw fekk ñu liggéey mu jël peel ba barkeelu wane exemple euh, loolee tubaab bi ñëw indi ci jafel ne nit ñi dañ leen di fay volonté googu ñu amoon muy coobareew googu tax na bu ñu leen fayee ñu jël ko joxaat ko sëñ bi mm-hmm. sëñ bi jël ko joxaat ko tubaab bi mm-hmm. tubaab bi delloo ko fayeek nit ñi di ko def noonu mm-hmm. ba raay bi ak si Touba muy ak njàmbaare ak itte ju kawe joo xam nekkoon na ci sëñ mu Moustapha loolu moo fi indi woon première infrastructure bu mag boobu biñ paree mu song jumaa ji ñu ne déet yaakaar da ciy dem mu dem ca lam ca man ah def ca njàmbaar goo xam ne ànd ko murid yëpp ñu ñëw wane ci boo xam ne ni gis liggéey bi noonu ñu song ci àdduna bi taxalu mhm. braay ci coobarew fi muy mhm. am fépp dafa daan nekk ci mhm. nekkiinu travaux forcés dañuy wax travaux forcés am na ci siin am na fu nekk waaye fii coobarew ko fi indi muy taalibe joxe seen bopp di coobarew loolu buñ ci jëlee dañuy daal di gis ne euh, ba seex euh, loolu moo fi indi woon raay beeg jumaa ji ba seex Moustapha wàccu bi radiyallahu anhu sëñ Fallou ñëw ca baatin bu bari ba mënoon a def lu ne mu ñëw jëfandikoo ak nite wàcc ci suuf woon nit ñi jiitu ca tool ya mhm. semb carrière bi sen sengaat liggéey bi mhm. ba jumaa ji àgg ci jàmm mu ànd ko taalibe yi ñoom it ñu wane ci Pastef mag ñëpp ñëw kenn desul mhm. ah sëñ Fallou ubbi marché bi ñëw taxawal eh, armeel yi yaatal lépp luy infrastructure ay mu assasaat ca jamono yooyee ah dëkk bi woote màggal gi nga xam ne nag képp ku yeewoo tubaa war ngay sant sëñ Fallou ah, gannaaw bi nga xam ne ñu ngi taasu barkeem ci weeram mu tedd wi ah, war nañ koy sante sëñ Fallou muy indi fi màggal gi nga xam ne mhm. day dëppoog rab ñaanuk sun maam Ibrahima gëm noonu rabbana li yuqimu salaata mhm. fajhal afidatan min nas tahwi ilayhim warzuqhum min mhm. sax la sëñ Tuubaa woon muy ndigal lu sëñ Tuubaa digle woon ku ne mën ko def fu ne sëñ Fallou yéene dëkk bi xéewal yéene projet yooyu mu sosoon nit ñi di ko daje fii di ko fi réunion mu defe ko fi ba tey njëriñ li topp dëkk bi kooku yooyu foofu lañ ko tegoon ci xidma ci volonté ñu foog ne liggéey bu ñu fi defaat amu fi mhm. mu mel ni dara dañ ko fee musta def mhm. fi simb yu mag yoo xam ne mhm. li gën a ñor ci sëñ Tuubaa muy mbindam mi mu jël ko dajale ci fu ne mu dugg fa ñii mu neexal leen ñii mu jënd ko ci ñoom ba dajale mbind sëñ Tuubaa yëpp wutal ko kër gi woote muy daare kaamil gi woo nit ñu fekk ko fa mu mu mu ànd koog murid yi liggéey boobee laa bëgg wax ci ay addiya yi nga xam ne dañ koy doxee di coobarew a ah, indi ko ñëw euh, euh, euh, dugal téere sëñ Tuubaa yi foofa. Mm-hmm. ba mu ci noppi song yeneen liggéey lu mel ni teenub aynu rahmati nga xam ne mhm. la fa sëñ tubaa dëxan ci mbóot mu dundalaat ko mhm. ñëw def kër sëñ tubaa gi nga xam ne ba tey jii mhm. njëriñam mënuñoo dañ di wax euh, njëriñam nit ñi ci euh, adduna bi euh, ñu ngi ci tàmbalee roy te fekk na ba mu koy def booba gisuñ loolu taxawal jàngukaay bi socialement mu mu song fi liggéey yoo xam ne ci defaraat njaboot gi boole leen maye mayente sëy suñ diggante ah, indi seex yeeg nit ñi boole leen muy liggéey boo xam ne kenn mënu ko cee fay ah loolu yitte ju kawe yi ñu mm-hmm. amoon ñoom am mm-hmm. vision am ay gisin yu sori mm-hmm. moo leen ko mayoon ànd ci nag ab li ñu naan eh, am fu ñu daan niitoo fu ñu teg sa yëf mooy faw say ni googu sëñ tubaab bindoon loolu lépp nag ah biñ koy def eh, kenn ku ne am nga koo ci àndaloon bu dee sëñ Mour sëñ sëñ sëñ Basiroo nga ci woon ci ga di ko jàppale ci liggéey bi xam-xam bi di ko nekkal ambassadeur nekk eh, diplomate sëñ Fallou bi mu ci tollee sëñ Ahmad sëñ sëñ sëñ Abdoulahi borom dër bi ma nga woon ca wet ga di def yoo xam ne mhm. kenn ku ne mën ngaa jël ci yooyu ay nattukaay mhm. ah ñooñu ba ci sëñ Ablaat bi mu agsee ñu ak ñu baax yi mu ko àndaloon sëñ Murtala day mel ni sëñ Ablaat mhm. jotuutam moom dara ci wàllu xilaafa sëñ Murtala fépp ab jullit nekk ci Sénégal yóbbul na ko fa jàngukaay yóbbul leen fa ñu mën a jàng seen diine yóbbul leen fa kaar yu leen toxal te lépp mu def ko wax fa lillaahi xaarut nekk xalifa xaarut nekk lan loo xam ne dina ko yokk doole lu dul yitte ju kawe jooju leen sëñ Tuubaa bàyyi woon mhm. loolu ci lañ war a roy mhm. ñu jël nag sëñ soy bu nga xam ne mhm. ah moom ñun ñii jàng ci xidma boobu ma lay wax nga xam ne xidma xam-xam ci la taxawoo sëñ Tuubaa lépp luy njaboot gi ak taalibe yi moo yoroon seenum njàng njàngum arxaan mi def ci loo xam ne ba tey jii ñu wax nit ñi mënuñ ko dab ci wàllu googu Ah, ñun ñii de wax dëgg yàlla ci haddi yooyu mhm. yi taalibe daan jox murid yi lañ yët sëñ Abdou Lahad ak sëñ Souhaïbou ñu ko ñu jàngal ñu ci mhm. mosuñoo yalwaani bañ fa jógee dem kër sëñ Saliou mosuñoo yalwaani ci lañ jàng xam-xam mhm. ah te fayuñu dara kon loolu ci xidma ci addiye ji nga xam ne fardu zakati fardu kifayatin la ci yenn jullit ñi mooy taxawu lislaam taxawu ah, diina ji ci ñi ko man ñu ñu jéem a jox ña ko gën a yayoo lu mel ni waa kër sëñ Tuubaa nga xam ne ñoo gën a yayoo wax dëgg yàlla bu ci ñoom lañ gën a yaakaare mhm. ñu jël suñuy addiya jox leen ñu taxawul ci loolu moo moo doonoon doxinu yoonu murid bi mhm. loolu moo doonoon eh, njëriñ li nga xam ne mhm. ci lañ daan ci lañ daan ci lañ daan ci lañ daan yar taalibe bi sëñ Saliou bi mu ñëwee ci loolu la jël feddali ko daal di fekk dëkk bi fa mu yemoon mu ful ko ñeent daanaka natt ci parcelle lu kenn mësta gis viabiliser ko ah, may ko indi fa ndox may ko nit ñi li wajhillaahi mhm. jox ko seex yi ak kilifa yi ñu jox ko seen i taalibe ak seen njaboot mhm. loolu la doomi sëñ Tuubaa yi nekkoon sëñ Saaliw ba ci nekk musta mhm. wàññi liggéey ba mu tàmbale woon ci sëñ Fallou muy ca ca daaraam ya ñun ñi ñëpp ci daara yi lañ màgge musuñoo gis lu fa manqué yàqalu ko dara ci liggéey bi mhm. dundalaat loolu ma doon wax ci sëñ Mouhamadou Moustapha muy santaane mhm. woon nit ñi ci liggéey yàlla sëñ Saliou dundalaat ko ci xel ko ñëpp xam nañ ne mhm. kenn ku nekk amoon nga sensu dem dund liggéeyal sëriñ Tuubaa wane sa sa sa jëf sa temps joxe ko xidma loolu sëñ Lamine damaa yaakaar ne suñ bëggee dundalaat dëkk bi suñ bëggee mu daw dab daw nam daan daw ba duñ ko dab ndax dëkk bi dafa defoon tayyu googu nga xam ne Sëñ Tuubaa léppam ci tayyu la jaar mhm. daf koo defoon di lu matu téeméer at mu àgg ci fii mu àgg mhm. kon suñ bëggee dox dox bu gaaw boobu dama gëm ne mhm. foofu lañ mën a jaar euh, bañ a jël mag ñooñu rek def leen di leen màggal rek di di ko tuddee waaye ñu jël ko jàngal seen seen doxin woowu jàngal ko nit ñi maa ngi lay fàttali ne daara yi duñ ci jàng lii ma la wax nii lépp daara yi ah, dañ ci jàng arxuwaan jàng ci xam-xam waaye fi nii ñi su fekkoon ne jël nañ lii def ko Euh, euh, jamonol ko dugal ko ci ñi wuy si léegi te mënuñ leen a yóbbu ci euh, àll ba di leen tarbiyew mhm. ci dëkk yi lañ nekk ay buntu kër yi ñooy taqaloo ñu def fa jàngukaayu jamono yii mhm. di jàngal waxuma la njàngum sëñ Tuubaa mi la li nga xam ne moom lañ soxla ci àdduna bi waaye di leen jàngal mhm. jikko yu baax yi ak melokaan yi kon dooñu gis mus mu ko duñ dellu ginnaaw duñ agsi ci ah wax dëgg yàlla soxla sax naan ñu ngi sox ak yëpp te mi mat dama lay wax ne fi ne ni ñun fi ne boo ko seetloo li ëpp ci ñun ñii ku ci dem daara it sa rakk ju jigéen demul daara mhm. maanaam te loolu amutoon ci mag na mhm. jigéen ci dëkk bi jàpp nañ ne wër te jàng li góor ñi jàng mhm. góor ñi dañuy dem daara jàng arxuaan jàng feq jàng yooyu yëpp jigéen ñi duñ jàng lool te ñun bu ñu takk soxna dañoo bëgg a takk suñuy nawle maanaam koo xam ne nii boo boo waxee mu ngeen bokk nu ngeen xalaat bokk nu ngeen xalaat su fekkee na yow fa nga nekk sa soxna si ngay takk bokku leen formation mhm. loolu dana waral sëy yu gàllankoor yi nga xam ne mooy gën a am kon ñu yokk jigéen ñi mhm. ñoom yëkkati seen niveau ndax mhm. ah mag ñu baax ñii de ci lañ nekkoon man de soxla Waalo sama waajur ba muy nekk kër si soñeb di jàng maa ngi leetar yoo xam ne moo ko bind ci loxoom ci wolof ak len li mu bind ko moo koy bind ci loxoom te ba léegi te kooku kon dañ ko yoroon soxna Mati yow fàttali nga bu baax ndax sa sa sa maam la yooyu eh, eh, eh, sa waajur la Ah, ah fàttali nga soxna mëti mhm. man ba may kon xay laa fay fekk ay masaalik mu koy jàngale mhm. te soxna fat jaxate ko jàngal sëñ mhm. tubaab ko jàngal kon jigéen ñi mosu ñoo des ginnaaw léegi nag jigéen ñi ñoo àgg ci góor ñi ñoom dong war a jàng njàng menn mi waxuma laa nag njàng mi nga xam ne moom góor ñi moom jànguñ sax lépp far léegi waaye lenn loolu ñu jàng sax génn nañ ci jigéen ñi kon dama gëm ne su fekkee ne bëgg nañu defar daal ci li misli hada fal ya'mal al-'amilin euh, wa fi dhalika falyatanafas al-mutasaab ci lu baax lii lañ war a jéema jéegowaat jéem mm-hmm. ci rawante mm-hmm. ah ngir dëkk bi mën a nekkaat fa nekkoon ci wàllu dox macha mm-hmm. allah macha allah mm. euh, analyse bu am am solo mm. Serigne euh, Mourtala mm. euh, dégg nañ ci bu baax rek ne kon bala ñuy mën a jëmmal loolu jël Touba teg ko ci place dëgg-dëgg bi mu war na il faut ñu delluwaat démb ci xitma boobu Serigne Touba tëraloon andi nga ci sëriñ Modou Moustapha mm. ci jafe-jafe yu metti yoo mm. xam ne nii mm-hmm. euh, noonu la la la la tàmbalee woon sëriñ bi du fi doon a jógee crise bi doog a dugg mm-hmm. mu def lam def lépp mm-hmm. jërul del siwaat sëriñ Fallou loolu ba mu ci joué andi ko sëriñ Abdou Lahad man rek maa ngi fàttaliku tuubaa gi ay jamono yoo xam ne nii buñ màggalee ba noppi cigarette yi mégo yi ay jàll lay doon bitéel yi rek lees yi ak sàngara si ay jàll lay doon loolu man maa ngi koy fàttaliku mhm. te léegi xale yi mujj judd mhm. koo ci ne Touba mas nañ fee tox mu weddi ko koo ci rawati nag naanaa ko nag naan kon loolu liggéey la bu ama am solo mhm. Sëriñ Saliou Mbacké kazalika moom itam dikk nga ci euh, dikk nga ci itam lu ama am solo mooy waruñoo toog rek di leen màggal noonu mel ne yëf yi dafa ji waaye dañoo war a lañ def fañ yemoon ñu sof ca def sax ba def lu ko gën a kawe mm-hmm. loo xam ne ñoom bu buñ dikkee mm-hmm. dañ ciy gën kontaan mm-hmm. ndax kat am na woykat bu ne innal fata man yaqulu ha lay sal fata man yaqulu kaana abi mbir mi du sama baay lii la def rek waaye man it lii laa def yaakaar naa loolu lu ama am solo la jigéen ñi nga ñëw itam loolu tam lu am solo la mooy jàpp nañ ne njàngum jigéen amul solo te fekk na dañ ne al al al al ummu hiya al madrasatul ula mm, kon jigéen moom mi madrasatul ula moom moo war a gën a jàng lu am solo kon sëñ Moutalla dañuy daal di eh, njëkkanteeg waxtu wi dem ci point bu ama am solo ñuy fàttali mbokki auditeurs yi rek nee na ñi ngi dalal Serigne Mourtada Kébé ci gannaaw amoon na benn émission bu am solo hmm. boo xam ne nii li ko seetaanagun mat na ñetti junni ni ak ñaar téeméer ak yu tegal waaye am na ci junni nit ak nangam yoo xamante ni nii email nañ ma Euh, di di di di rafetlu émission bi di sàkku sax ak delsiwaatam hmm. ba tax na ñu sàkkuwaat ko ci moom ak li muy jafe-jafe ci li muy am am euh, ay itte ak jotam du ko ko may waaye ñu puusanteeg moom ba mu ñëwaat delsiwaat fii ci studio Alla Sarr Touba kon Serigne Mourtala ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay euh, sant bu baax ci loolu ak disponibilité bi léegi nag xidma boobu nga xam ne andi nga nga xam ne mooy waral ne ci lañ war a delluwaat hmm. nga indi ci exemple yooyu yëpp nga ci indi loolu naka lañ koy jëm jëmmale ci suñ réalité bi actuellement jërëjëf sëñ Lamine euh, laaj boobu dinaa ci bëgg ndax mm-hmm. maanaam loolu moom la ñu war ñun gën a jëmale suñuy discours ci mm-hmm. régler maanaam wut saafara ci mbir yi te bañ di jàmbat rek mm-hmm. li boo seetloo tiers monde lu mel noonu da leen a jomb lool maanaam mbir yi fii ñuy colonia colonialiste yi mu amara nangam boo demoon tey ji Israël réew su ndaw la waaye Égypte ba réew ci wet ga fu mu toll ak Caire ak ak ak Jordanie ak Arabie Saoudite la ñuy jàmbat Israël rek te ñooñu seen benn province rek mën naa wan ne Israël kon jàmbat mhm. Mhm. Ah, dama la ci eh, dama ciy ñëw ci solution yi nga wax noonu ne mhm. jàmbat moom gëm naa ne ah du régler problème yi dañoo war ah, ku ñu complot ñu complot dañoo war a di di fexe bàyyi jàmbat bi bari na fii sax lu ñuy wax naan état bi di ko si état bi di ko juñ état bi te état bi wax dëgg yàlla yoonam nekku ci ñun ñi fi nekk la ñenn ñi sëñ bi jox leen ndigal joxuwuñ ko nañ ko war ñeen doxee ñenn ñi it wax dëgg yàlla na mbir yi war a doxe doxe woo kon mm. loolu ñun mm. ñu fi dëkk ci dëkk bi di mm. jariñoo mm-hmm. ah, xéewal gi nga xam ne waa màggal gaa koy indi ak waa Touba yoon yéen ñëpp mm-hmm. di njaboot Sëñ Touba ñun ñoo war a bàyyi te bàyyi jàmbat seen mm-hmm. solution yi man nag bu ma doon indi solution dama naan ñu jël yi yi kon ah, comme am nañ exemple yi ma wax léegi ni ñu jël ko jébbal ko sëñ bi su ko defee sëñ bi delloo ko foofee mu nekkoon mooy ñu di ko santaane di ko santaane muy jur njariñ loo xam ne ni danañu teetal maanaam ay appel d'offre ak yu bëri yooyu yëpp nga xam ne ku bëri entreprise yi bi ñëwee mhm. gagné ci seen benn trente pour cent ci loo xam ne nii mhm. ah bu fekkoon ne santaan nañ ko loolu du ko am mhm. ah fay mënta ñàkk waaye ah bu fekkee ne mën nañoo seet la ca gën a mënta ñàkk ñu fay ko ndax dëkk bi dañ koy taxawal boo seetloo ne tubaab yi nga gis ñu xëy taxawal seen dëkk yi eh, dépassement budgétaire yi ñu ñuy tere nga xam ne suñ état yi mënuñ ko suñ commune yi mënuñ ko ñoom bañ cay nepp respecté wuñ ko woon ngi amoon seen liberté totale di dépasser nu mu leen neexee mm-hmm. ba taxawal infrastructure yu mag yooyu mm-hmm. léegi nag ñoom ci ñëw tere ñu mm-hmm. kenn du mën a dépasser budgétaire yu mel noonu loolu tax na ba ñu ni ñu war a màggee mu gaaw duñ ko mën a defee kon il faut ñu jël ndaam euh, gafagak dëkk bi muy budget bi man koo woote seet nu nga xam ne kilifa yi ak waa état bi mën nañ cee déggoo ci forme bu ñuy dépensé mm-hmm. ñu santaane eh, eh, infrastructure yu mag yooyu nga xam ne moo fi war mm-hmm. ci dëkk bi mm-hmm. ñu santaane ko nit ñu ñëw joxe ci seen doole ñu ngi ci war a fay ñu jàpp ci am na ci loo xam ne ministre du ñàkk fay ña nekk ca commune ba fee di liggéey boo demoon ci zakat dañ ne innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masakina mm-hmm. wal amilina alayha mm-hmm. kon wal amilina alayha sax dañuy lekk zakat mm-hmm. waxuma laa nag kon ñoom ñi nga xam ne ñoo yoroon ko bi ñooñu fa des di ay fonctionnaire ñooñu ñëw jàpp ci liggéey bi ñu teewul ñu téyel leen seen salaire loolu mooy yoon wi gën a gaaw bi nga xam ne ragal naa ne dana mën a dana mën a dana mën dana mën indi saafara yu gaaw ci wàllu économique te boobaa fenn fu ñu war def euh, ñaar fukk ña ngi fay def juróom ngir nit ñi coobar lañ ci doxee bul fàtte ne xel comme gii lañ fa taxaw lépp santaane ko taxaw Mhm. man jamono yam ma fay nekk mhm. ña ngay ñëw ay gaskat bu ñëwee wàcce camion mhm. ñu ñëw gas ay tuyau delluwaat te ñooñu dañ ko def ngir yàlla ah noonu lañ tabax yi maçon yaa tabax ah, néeg ya te kenn fayut commerce ah, ah, kànkaayir yi joxe ay sang noonu lañ liggéeyee maçon bu mag boobu di xelkom noonu la sëñ saa liggéeyee daaraam yëpp ta la ca jógee da ko boole bokkaat ko murit yi woote ci dëkk bi jox ko ngir nit ñi bokk fi loolu mooy maanaam système xidma bi nga xam ne nisaam xidma xidma bi nga xam ne gis naa dana gën a gaawal doxub yoonu murid mhm. maanaam maa la lay yëgal ne mhm. sëñ Blaat bi mu fi wootee di laaj ci yoonu murid wépp mhm. lu jëm ci jumaa ji yoonu murid yu nekk ci biir dëkk bi ak bitim dëkk bi ak bitim réew yëpp bi ñu dajalee lañ dajalee ay ñeenti milliards lay war a tolloo euh, dëkkub Touba at mu jot nañ seddoo ci budget ñeenti milliards kon ñeenti mil murid yi am nañ léegi doole am nañ xaalis boo xam ne mën nañ ko volonté boobee nosu googee mhm. kon moo fi des ñu delloosi ko mhm. loolu laa gis ne mhm. dana gën a gaawal bu ñu ko mënul nag su fekkee mu mënuñ ko jox sëñ mu def ko nii ma la waxoon damay gis ne def ko ni ko tubaab yi defee ni ko république bi defee day gën a yell ndax république li ñu ko defee mooy ab budget boo ko joxee ay nit am réew boo ko boo ko taxawalee ab dëkk ñu di ko guverne nit ñi dañuy ñëw laaj baatu nit ñi dem ci gox yi dem ci goxaat yi jéem a convaincre yay ña fa nekk ne leen alal ji fii laa koy dugal lii laa ciy def mm-hmm. Mm-hmm. boobaa dana tax ba nit ñi te bari la ñuy doon ay candidats yu bari maanaam ay mbër yu bari ñoo ñëw di jongante mm-hmm. ku nekk di wax fa dugal yi fi ñu seet ka leen ca gën a yey ñu jox ko mu yaroon leen seen alal lu ca baaxul ñu yuux ko ko duñ ko sëñ bi duñ ko luñ xalaat wax ko ko mooy liy dox ci réew mépp mooy dox ci gouvernement loolu nag buñ ko defut ñii fi nekk nga xam ne dañuy dañ leen di ruuse sëñ bi loolu day tax ba duñ mën a yitte ju kawe ji nekk ci maanaam Euh, ni ñu war a doxe effort mm-hmm. bu mag bi nga xam ne mën nañ koo génne mm-hmm. ah ko def ta boobaa mm-hmm. gàllankoor la jub mën naa indi sooxe man daal loolu laa gis ne moom ah, bu fekkee ne bëggoon nañoo gën a réussir dañuy ñun ñi ngi am nañuy woote dawle islam yi am nañu bala ñoo def dawle islam yi bala ñoo naan dañuy soppi feneen nañ def baladiyee islam yi nañ taxaw dëkk bii ci maanute ci roy sëñ Tuubaa ci dellu jëf ju baax joojee bala ñoo woo réew mi naan lañ leen di baaxal ak nangam ñun ñu dëkk ci dëkk bi waa dëkk bi nañ gën a sàmm dëkk la Mhm. ay axlaax ay jikko yu baax doo gis dox kuy dox yaramu neen doo fi gis yenn yi mhm. waaye ci alal ji ñu gën koo sellal ba nga xam ne mhm. dox bi dana gën gaaw man loolu laa gis ne ah, ñu bàyyi nag di xalaat di wër rek ndax Sëñ Saliou nee na woon xel mën naa wër adduna bi yéeg ci garab yi ci ngelaw yi mais tànk moom day dox rek jaar ci ñu jàpp ne inna allaha laa yuxayyiru maa bi xawmin xattaa yuxayyiru maa bi anfusihim li fi nekk mm-hmm. ñoo ko mën a soppil suñu bopp mm-hmm. ah wane ci tëju kawe kawe mm-hmm. su boobaa dana soppi ko man daal noonu la macha allah analyse bu am solo tam euh, sëñ Mourtala dégg nañ ci waxtaan wi am solo mu mel ni sëñ Touba moom wane na aw yoon nit ki na bu dikkee wane aw yoon ci wax wane aw yoon ci bind wone aw yoon ci jëf yaakaar naa ka war topp ci yoon wi amatul aw lay sëñ Touba wax na bàyyi fi wax moom daan ñëpp daanañ ko dégg mm. lim bind wax waxi nopp mi ngi fi ba léegi mm. te yooyu yëpp benn téere rek mën nga ko caa jël mm. mu mën a nekk procédé société réew sàkkaan ak ab dëkk kon Sëñ Tuubaa bind na baay fi waaye itam def nañu gis fii ndax jumaa ji biñ koy taxawal ci xitma boobu la ko mm. taxawale mm. sëñ Abdu Lahat gis nga bi muy woote mm. am na sax ku ma nettali ne sëñ bi mu laajtee milliard boobu loolu lu xoromu la nee na benn tubaab la mu laaj mu ñu ne ko waaw lii kii ki laaj milliard bi xanaa moom xelam kii ki milliard ki koy laaj nee na bu matee mu mu mu yéemu ne waa mat na ñu ne ko waaw mu ne kooku lu mu doon ci gouvernement bi mm-hmm. ñu ne ko kooku de ab sëriñ la bu nekk bokkul ci ko mu ne kooku da cee war a bokk <laughs> waaw mu ne kooku da cee war a moom tubaab la waaye gis nga <laughs> ni mu xalaate nu am solo la <laughs> maanaam euh, loolu lu am solo la kon sëñ bi wane na yoon wane na compétence wane na tam responsabilité il faut kon compétence ak responsabilité ñëwaat mm-hmm. taxaw himma ja sëñ ba sëñ Tuuba sose woon euh, yoon wi mm-hmm. himma jooju moo war a rogalaat ci taalibe yi mm-hmm. waaye itam rogalaat ci jiite dëkk bi tam macha allah kon it euh, sëriñ Mourtala ñu jàllaat ci point bu am am solo mooy lu jig njaaga te njaa ñoo njaag ndax liggéey bi sëñ Tuuba moom dong la ay taalibe yi nag la ci àndaloon taalibe ba njëkk a jébbalu ci sëñ Tuuba mooy taalibe yi yëpp benn la tàmbulee ba ci ay millions taalibe yooyu mm. maanaam euh, lan mooy seen rôle dëgg-dëgg bi ñu war a mën a jouer mm. ci xitma boobu. xitma boobu taalibe yi moom ñoom ñooy lépp ndax taalibe. Mm. boo jëlee baat bi mooy kii sàkku. Mm-hmm. Ah, kii sàkku nag war naa xam li bi sàkku wala dara taalibe yi dañu war a yëkkatiwaat ni ko sëñ Muntaxa di waxee yëkkati seen yitte. Mm-hmm. rëy bët. Mm-hmm. yoonu murit la sëñ Tuubaa woote woon ci Mbàkke Kajoor mooy rabbi ashaabaka bil himma la ko yonent te loolu mooy réel bët. rëy bët googu nag. xam na ni Eh, da ngay sàkku lu rëy. Mm-hmm. Eh, war ngaa xool wa mar maa ay nu man sa nu wala oluwul alaaw. la mm-hmm. la xaw ma busayr wala eh, ci xam si. Mm-hmm. léegi loolu. lañ waxoon yont bi. koo xam ne ba nga juddoo nga xool ca kaw. kooku lu kawe rek ngay am kon. dëgg la bu ñu nee dàq Sëñ Tuubaa la ñu war a xam ne. ñun lu kawe la ñu war a séntu. ba ñu cuune. léegi léegi xew cuunisme gi nga xam ne ku jug yilif la. xamatoo Sëñ Tuubaa lu jug ñu ne la léegi sëriñu maam man yi lu nee nga fi. taalibe yi dañoo war a gëstu jiwaat Sëñ Tuubaa gën a euh, roy ci mag ñooñu nga xam ne mhm. da nga jël ku mel ni sëñ Moussa Ka sëñ Mbay Jaxate mhm. sëñ sëñ Samba Yaram Mbay gis nga ñooñu boo leen jël bu ñu mhm. waxee te ñooñu ñooy ñi wax ci taalibe yi ndax ñooñu mën a xamal ñi waxut ñu waxee da nga yaakaar ne ay agrégé lañ yoo xam ne ci fànn yëpp te ñooñu ku leen ñëwoon di leen yilif dangay ngay yëkkati ko ba tolloog ñoom da ngay wane ak kawe ñooñu ñoo doon ay taalibe ñun bu ñu roy ci loolu lañ war a yëkkati ko doon ñu diis te woyof diis ci gës sëñ Tuubaa bu ñuy gën nga gën ñu ci sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa alxuraan dane wallahu faddala baadakum ala baadin fi risqi mhm. alal da nga ciy ëpplante faddal mhm. googu ëpplante lay lay firi mhm. eh, ci ni ma ko déggee incha allah waaye buy wax ngën ngën ci karam lay jëfandikoo inna akramakum indallahi atqaakum karam mooy liñ naan eh, eh, gën a tedd nit ki ku la gën nag kon ci ragal yàlla li gën kon nit ñi war nañoo xool ñi ñu gën ci sëñ Tuubaa mm-hmm. ñu ko wan ñu ne ñoo ñu gën a jege sëñ Tuubaa ñoo ñu gën mm-hmm. gën a xam sëñ Tuubaa mm-hmm. su boobee bu taalibe yore yi tëju kawe jooju kawe noonu sëriñ si dañuy yéeg raw leen boo boobaa nag yëf yi day ànd dem waaye léegi maanaam nooy na nooy goo xam ne ku jug ah, nekkub sëriñ ku jug Eh, woote ay baatin yoo xam ne doo xam fu ko jëlee mhm. nit ñi man xama baatin lu muy jariñ su fekkee ne mhm. nit ki munu cee faj soxlay boppam mhm. maanaam di woote yaa gis xudar yaa gis lu ne nga di ko wax léegi boo dem ca Ndakaaru am na sëñ bu bees boo xam ne sëñ Saliou nag mooy kiñ ci gën a yeb moom ak sëñ Fallou sëñ Fallou yow eh, eh, dégg nga ci télé bi ki naan sëñ a ma daggal ngeer gii sëñ sëñ yow ci daara ji nga yaroo sa bàyyi sëñ Daam Abdourahmane ci daara ji naan dafa nga ne sëñ Saliou am na jot naan daggal daggal reen bi daggal reen bi léegi yooyu fi xew sëñ Saliou ma daggaloo reen bi di joxe nangu fa mhm. nit ñi gëmatuñ yàlla àgg ci yaakaar ne mhm. nit ki at yàlla dafa bàyyi nit noonu ina ibaadi laysa laka alayhim sultaan yàlla mhm. bàyyiwul nit ñi noonu du ko jóg mën laa njabar du jóg jóg mënal la dara ñu ne dàkk sëñ Tuubaa wëri ko boobaa nag taalib yi dañuy daal di kawe kawe goo xam ne ah dañuy daal di gis sëñ Tuubaa ci lépp te fonk ah, waxtu na ko sëñ Tuubaa xoon buñ fonkee waxtu nga xam ne dañ ci gëstuwaat sëñ Tuubaa waxtu yi jamono ji léegi ak appareil yu moderne yi foo soxlaa xam-xam muy ci sëñ Tuubaa ci àdduna muy lu doon mi ngi tege sa loxo nga ko mën ngaa gën a gës gën a yokk sa xam-xam mhm. sëñ tubaab yi mas naa wax ne euh, comme tu yéen tubaab yi ñoom àdduna lañ bëgg te gis ngeen li ñuy daj mhm. kon yéen ñi bëgg àdduna ak àlaxar yéen kon lu ngeen daj kon ñi bëgg àdduna ak tubaab yi nga xam ne yow nekkoon nga fa mhm. gis nga ne fajar ngay yeew xale yi fay yéen ay bokk yi bale ñu fonk àdduna kon ñun ñu bëgg àdduna ak àlaxar li ñu war def kon ñu waat yi tey man laa gis ah gën a exigeant maanaam gën a doon ñoo xam ne ku ñu yilif da ngay ñëw wan ñu bu wér na yaa ñu gën ci sëñ Tuubaa mhm. te nag mooy lislaam mhm. ñun lislaam yi bari na mhm. lislaam saafi yi ana fii nangam naag waaye sëñ boo ko jëlee mooy daj dëpp gi da ngay daal di gis yonent bi gis yàlla kon jërul ñuy wër leen lu sëñ Tuubaa ku la gën ci sëñ Tuubaa nag ku la ci gën a raw ku la gën a wan ne moo la féet sëñ Tuubaa kooku war nga ne ko dàkk daal di eh, eh, eh, seet sab liggéey ci moom loolu bu ko taalibe yi defee dañuy daal di kawe te boobaa nag ah vie associative gi di daal di a dund muy daayira yi mhm. daayira yi ci lañ mën a liggéey sëñ Tuubaa mhm. aljamaa rahma mhm. su ko defee kenn du beru ñëpp ñëw ci mbooloo mi képp koo gis ne yow fa nga mën liggéey sëñ Tuubaa ci ci ci mbooloo mi nga ñëw bokk fa boo seetloo hôpital bi bu ñu koy tabax yow yaa ngi woon booba Los Angeles xawma ah, Michigan Michigan di génne sa alal ju bari di ci def ñu ñi di la jox ngir wóolu man fa ma nekkoon maa nga daan joxe ñun ñëpp ngir booba ah ñi nañ daan doxe la léegi li ñuy ñaan taalibe yi ñu bokk ci yëf yi te buñ ci bokkee ñu di ko saytu ba nga xam ne mhm. ak jàng du ci mën a am ci gën wér ngir yëf yi mën a ànd yi dem mhm. boobaa nag bu sëñ bi gestoo mhm. la sëñ Saali waxoon ne boo leen jiitoo xaar leen bu sëñ bi di gis rëkk ñu sës ci moom ànd jëm ci sëñ Tuubaa loolu laa gis ne moom su fekkee ne eh, eh, taalibe yi gën nañ koo gën nañ koo gën nañ koo dundal bàyyi ku jug yilif la ku jug ne la eh, léegi mënuñoo xàmmee maam man yi ak ak ak ak ak ak ak ak sëriñ si ndax da nga gis koo xam ne lam jël ma ngi ko jëlee ci sëñ Saliou mhm. ma ngi ko jëlee ci sëñ diw mhm. ku jug nekk seex ku jug nekk dara loolu la ñu war a jël mhm. seet ne bu dee ci àdduna day man du ma nangu fii ñu tali kii tëju kawe ji ñu fay sëñ Saliou yare ah defar ko ci ñun mhm. yitte jooju du ma nangu man ku ma ëpp xam-xam mhm. mais du ma nangu ku ma ëpp alal waaye léegi nit nga bañ mën ngaa bañ ku la ëpp alal mhm. mais doon nangu eh, ku jóg rek ëpp la xam-xam la loolu la taalib yi loolu lañ daan roye ca ñoom sëñ mag ñooñu ma la tuddal nga xam ne bu ñu waxee sax kilifa yi daal di dégluwaat sëñ bay jaxat bu masaan wax sax kilifa yi dañuy daal jugaat eh, eh, déggaat wax ndax ñooñu dañoo dajoon yàlla te maa ngi lay yëgal nag sëñ Tuubaa rek ngay gis ña ci bokkoon ñëpp seex ña daan root ndaay sax dañoo seexoon ndax sëñ Aboo Kebe dafa dem Mauritanie. bis mhm. ab naar wax ko lu am solo. Mhm. na ko man ni ma jaaxal murid i taalibe murid moom toujours day taalibe lay nekk rek amul amul carrière. Mhm. te loolu léegi la am amul amul sëñ Tuubaa da ngay nekk taalib ba xëy nekk sëriñ. da ngay ami taalib yooyu waaye da ngay àgg fa yàlla. da ngay yëg suñu borom. dëgg la sàkkootuñu yàlla. Euh, euh, euh, wér dul maa xuus kenn defatu ko. ngir seytaane suñ ci wax boo xëy ñu ne ay gàllankoor yu ñu ci wax. nag ku ne jéem. taalibe googu na nga xam ne buñ ci delluwaatee. di bëgg yàlla. jéem a mos yàlla ni mu neexee mhm. bul fàtte ne lu neex mhm. li ngay lépp yàlla sàkk loolu kon ku bëgg a xam lu yàlla neex na mhm. nga xool ki lim sàkk maanaam la ngay mos ci ay ñam ak ay soxnaak lu mu mën a doon ban neex boobu yàllaa ko yàllaa sàkk kon yàlla mi sàkk nu war a mel wër yàlla boobu mu leen defatul nit ñi daan daw ci sàkket ya di am pëstef yooyu gistuñ ko ndax nit ñi gistuñ sax bëgg yàlla fa loolu la taalibe war a dundalaat gëstuwaat sëñ Tuubaa seen yitte ba xam ne ku leen di yilif dana yërëfut ay cuuna mais tunis a nga xew mhm. léegi ab xar yi zakk yi mhm. li ñuy mooy jeunes yi amatul mhm. kenn gisatu fi kuy jommal nit ñi koo xam ne da ngay def luy kiimaane nit ñi dañoo woyof bëgg lu yomb amatuñ ay ay yooyu war nañ ci jug ñun jullit ñi ñu murid ñoo ko jiite woon delluwaat ci ginnaaw macha allah macha loo ama am solo kon xal liñ ciy dégg rek mooy euh, murid day rëy bët kon taalibe yi war nañoo rëy bët xool fu sori rëy na tekiwul ne da ngay da ngay da ngay yaakaar ne yaa ñëpp mm. sëñ sëñ Moussa Ka dafa jàkkaarloog sëñ Touba dane lewet ba ne doom mm-hmm. dane euh, woyof ba ne toy mm-hmm. diis ba ne gan mm-hmm. ci wet lewet ba ne domm saf sàpp ak boroomam nga xam ne kon murit dafa war a woyof dafa war a diis ba pare woyof waaye nag lewet ba pare weex loolu lu ama am solo la euh, dikk nga ci lu am solo loo xam ne phénomène la fi mu toll nii ku jóg rek fi mu toll gi li ko wër ak Mbàkke ak fu nekk sëriñ yi ñaan hmm. ku nekk naan maa man lii sëñ nangam sëñ xudar sëñ hmm. ku nekk sëñ saali woo ma joxoon lii te li ñuy wax hmm. dara amu ci te suñu borom nee na gis nga doguma la sëñ saali moom ñuy wax ñu ci bari fekke nañ ko nit ki boo ko xoolee war ngaa xam li wax ak li mu waxul sëñ saali mi ngi xëy wax bisu mu ah, ngi ci bande yi ñe dem kër gis nañ ko fuñ toll ne sëñ wu ma jox moo ma daggaloo ngeer gi man yooyu damay dama dama da loolu moom xaj na sëñ saali wu bàyyi rek am sëñ Fallou bay rek nga am eh. moo tax ñoom it ñu daw wuti ca ngir eh. nit ñi gëm leen eh. seen stratégie lañ lañ yore waaye loolu du du du jàll du nit ñi ñu ngi leen di xamal ne wala yuflihu saahiru su ata ab njabar mënta ñëw rek mel ne yàlla dafa bàyyi tàkk nit ñi bàyyi noonu te du leen toppatoo suñu boroom mooy sàmm nit ñi ku bëgg yàlla sàmm la dellul ci yàlla ma nga xam ne nii moom mooy sàmme am nga tam lu loo wax itam lu ama am solo muy euh, booloo gi aljamaatu rahma gis nga daayira yi maa ngi leen di ñaan mboolem daayira yu nekk ci ci Sénégal ak fudul Sénégal bitim réew ñu nekk benn parce que defe naa sëñ Fallou laa waxoon ne moom moom wax ne moo ko wax ne aljamaatu rahma mooy mbooloo mu bokk pas-pas waaw mu bokk pas-pas nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ko waaye moom moo ko tekkee nii moom moo ko moom ko fara mooy faram fàcce Muhammadul Fadil moo ko muy ngoog Muhammadul Fadil moo ko wax <laughs> nee na jamaatu rahma moo xam ne dañoo bokk pastéef bëggante wóolonte di dimbalante bokk pexe bokk jublu bokk yéene mm-hmm. luñ jéem man ko mm-hmm. rahmatun luñ jéem man ko mm-hmm. kon mbooloo rek amul solo waaye mbooloo mi nañ bokk positif bokk jublu bokk yéene bëggante wóolonte dimbale ko dim dimbalante noonu la mag ña meloon ba luñ masaa yëkkati daan ko Serigne Mourtala lu am solo kon euh, xam naa ñi ngi ci ñi ngi may signalé ne ma waxtu wi li ci des bariwul kon xam naa dama lay jox sa kàddu mujj rek nga nga joxal sa kàddu gu mujj. waaw moom xanaa ñu tëj jotaay bi beneen yoon. sëñ Lamine tànk tënk li ñu waxoon fii rek. ci ne hmm. man li ma gis mooy liñ fi wax ci mag ñu baax ñi liñ fi wax ci ah wax dëgg yàlla ni taalibe yaakaar nañ ne ñun lan la war a mer ak suñu aju néew. Hmm. liñ fi wax ci ne mooy doxal dëkk. Hmm. man gëm naa ne. loolu ak mbaax lay doon. mbaax nag. civilisation yi fi jaar yëpp ku ko mës a am. boo ko nosul téye ko day wàcca dëgg la boo seetloo l'islam de six cent avant Christ ba keroog ngay dem mille cent. dix huit dix neuf yooyu. Mm-hmm. jullit ñee yor àdduna bi. Mm-hmm. waaye am nañ ci ay haut ak i bas maanaam ca kaw ak yéeg ak a wàcc. Mm-hmm. gannaaw yonent bi xulafaaw raasidiin ñëw nañ bañ fa jógee. lislaam àgg na ci foo xam ne mu gi. Omar ibn Abdul Aziz moo jóg. ak ku ñuy wax Haroun Rashid. yi fi delluwaat mel lu yëkkatikuwaat. ba mu yàgg ñu demaat ñeneen ñëw. ñu depp ko noonu bat keroog ba ñàkkee andalus ba tubaab bi génn mhm. tàmbali def révolution industrielle ba moom àdduna bi mhm. tubaab yi boobu léegi nag bàyyiwuñ ko dañ koo nose mhm. nos ko bind ko ah eh, tegu ci xamuñ ko baax boo ñëwoon ji leen nag boo baax bu baaxul règle yi fi nekk ah ñu ngi koy bind bu ko fee ñëpp di ci jaar ñun nag Mhm. ñun alam islam ñun monde jullit ñi loolu lañ war a jàng mhm. ci ibar jële ko comme waar waaye xam ne li ñu daloon mu mhm. bañ a dalaat ak bàyyi yi ñuy dal di yéeg ko wàcc bu ñu amee lu baax ba ñëpp ñu jékki jekk wàccaat ñu jël règle yooyu nose ko bind ko faalewuñ duñ sóoraale baaxuk nit ba mu ñëbbaale wala sàgganuk nit mooy ay règle la ñu dustuur bu naan dustuur nag pas dustuurum réew waaye ay règle yoo xam ne jamaaxa bu ne mbooloo mu ne mën nañ koo def muy seen i ñu bind ko loolu boo demee imaam Khomeini ba mu demee ba gañe révolution boobu def ko nos ba léegi fi na jaar nañ leen fa mënuñ mhm. faa jaar ndax dañ ko organiser nos ko mhm. loolu bokk na ci li nga xam ne buñ dajee lu baax dañ ko war a aar téye ko mhm. man loolu laa gis ne jullit ñi fii am nañ fi lu nekk boo jëloon li tàmbalee keroog ngay jógee Euh, Cameroun ba keroog ngay dem ca Castilla ca mm-hmm. ca Castilla muy Espagne. Mm-hmm. ca Madrid la boor yooyu. Mm-hmm. benn buuru ko yilifoon bu jóge fii ci naxaru Sénégal muy ci Saint-Louis. foofu la jógoon muy Mourabitouni. muy l'islam goo xam ne nii. ku ñuy wax Youssouf nu di jàmbaar joo xam ne dund na téeméeri at. def fi loo nii ñu ngi ci maj. mu faatu yëfee delluwaat ginnaaw. mu wax yi dinay jógaat def lu nekk. mu fa ñooñu faatu jamaat kon julli ñi jóg wàcc yooyu. dañ cee war a tayal. ñu na nag taxawal l'islam boo xam ne. buñ ne l'islam nag li ma wax noonu mooy ak maanute Mm-hmm. seet ak mbaax gi ñu sëñ Tuubaa yoroon mm-hmm. ñu jéem ko dundal ndax du du ay lislaam doon la dëgg bopp lislaam mooy yiw mm-hmm. mooy liñ naan looy def nga def ko bismillahi loolu rek mooy lislaam loolu bu ñu ko defee dañuy daal buñ nosee loolu dañuy daal di dellu fa nekkoon duñ jooyati li fi jógee ah loolu nag dañoo amoon gaa baax yoo xam ne nii tilka ummatun xad xalat laha maa kasabat mhm. walakum maa kasabtum ñun fi mhm. war nañoo sàgg lool mhm. loolu ñoo fi def ñoo war jël raaya bi yóbbu ko kon ñu dégg ci rek na an nizaam muy organisation ak masuliya fu mu amul rek anarchie moo fay lal macha allah mooy lu am solo kon sëñ Mourtala ñu ngi lay dellu di la sant bu baax di la euh, di la di la sant bu baax a baax ci sa disponibilité ndax xam naa sa jot néew na nga may ñu ci lii ñu maa la forcé sax ba nga ñëw nii mm-hmm. waaye loolu tam xam naa ñoo bokk yëf fii mm-hmm. moo taxit mu demee noonu ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm yéen mbokk yi nga xam ne yéen a ngi ñu doon bàyyi xel ci biir réew bitim réew ñu ngi leen di xam ñu ngi leen di xamal ne ñu ngi dalal Serigne Mourtala Kébé fii ci Al Azhar Touba euh, ci émission bi nga xam ne moo di Touba paradis sur terre wala Touba jannatun alal ardi di waxtaane lépp loo xam ne nii day soxal Touba lu ko mën a jëmale ci kanam ci saahir ak baatin ñu dalaloon ko ci day doon waxtaan ak moom Euh, di ñaax mbokk yi nga xam ne ni ñooy euh, ñoo nekk ci biir réew mi ak bitim réew tam bu ñu mënee abonné ci site bi euh, ñu abone ci incha allah wala ñu télécharger application yi ci seen tablette wala seen téléphone Android wala Apple incha allah loolu tam dina am solo ci noonu waaye itam day gën a am solo ci yéen ndax day tax émission yu mel nii du leen raw kon di sant Serigne Jibril Khoule mi nga xam ne nii moo nekkoon ci caméra bi di sant Serigne bu Boumar ci montage yi. alhamdulilah. على ثقال بفروج وسنن